jërë ngeen jëf coow li ak mbambuli ci réew mi jamono ji l'observateur nee nañu mooy fichier électoral bi ubbil yéenekaay bi li ñu gisagum ci vérification dossier parrainage bi journal bi gis na ne bu ñuy jëmee ci contentieux électoral ay candidats yu ñu i candidats yu ñu ne nañu ñëw mottali ndax li ñu yor ci parrainage matul journal bi nañu moo tax ñu gis ci réew mi ay candidats yu jóg taxaw di xeex ak a jéebaane ak a ŋàññi système électoral bi mu di ay mbir yooyu l'observateur gis na ne bu ñu ci waxul jug taxaw ci teel koo régler mën naa jur yi ñu jëm ñaareelu tour contrôle parrainage yi l'observateur mi ñaar fukki candidat ak ñett ñoo war a dellu ca kanamu commission contrôle parrainage ngir mottali seeni parrain vox populi nañu juróom-ñeenti candidat ñoo jàllagum parrainage am na ñaar fukki candidat ak ñett yu war a régulariser am fanweeri candidat ak juróom yu ñu éliminer d'office ndax parrainage yu bon juróom-ñeenti candidat yoo xam ne clé USB yu ñu yóbbuloon commission contrôle parrainage commission ba da leen delloo ndax nee na ko la ak yeneen juróom-ñaari candidat réew mi quotidien xëy di ñuy yeggee leeral yi bàyyeekoo ci waa conseil constitutionnel jëm ci li tax exploité wuñu dossier parrainage Ousmane Sonko bés bi la jour nañu candidat yi ñu rëkkale woon ñu war jaaraat ca kanamu commission ba seen requête ba ñu yóbbu woon démb ca conseil constitutionnel juróom-ñaari sage ñu fa fekk noo bu wow kong lañ leen ci tegal Aminata Touré compagnie lañ doon sàkku yéenekaay bi nee nañu parrainage yi ba moo waral am na lu mat ñaar fukki candidat ak juróom-ñett yu déposé seenub recours lañ ci bëgg mooy parrain yi ñu ne walaa ñu régulariser leen ci xët mu njëkk journal La expert électoral bii di Ndiaga Sylla ma fay wax ne logiciel bi ñuy saytu ak di ko càmbare parrainage yi candidat yi xamuñu ko journal Sud Quotidien moom li mu xam ba xam ko mooy système parrainage citoyen baaxul ci ku bëgg a doon président société civile bi ci réew mi am na ñenn ci a Quotidien ma nga fay wax ne dañoo war a arrêté processus électoral bi ndax ni muy doxee ne bu ñu ko seetaane dafay saboté élection présidentielle yi ñu jëm coow lu bari li am ci fichier électoral bi moo waral direct news di laaj ci diggante Sénat direction générale des élections ak conseil constitutionnel kan ci ñoom moo cure fichier bu baax bi li ñu nar a gis ci élection yi te du doon lu baax anki dina kay nee nañu mooy candidat yu jigéen yi ak ni ñu néewee juróom-benn di Anta Babacar ak Aminata te ci ñoom juróom-benn kenn cote di Anta Babacar Ngom moo jàllagum pare na alternance leneen li enquête dina kay gis ci candidat yu jigéen yi mooy ñi bokkoon ci élection présidentielle yi 2019 amul kenn ci ñoom ko bokkaat ci yu yi ñu jëm ñu dem ci football bi équipe nationale Sénégal bu football bi doon football démb ak waa Niger ci match amical ngir tàggatoo ak waa Sénégal laata ñuy dem Côte d'Ivoire stade dina kay ngi ñu wax ne li ñu gis ci footballu gaynde yi démb ponum pir la dàq na pon waaye pon dàq na ko ne match ba ci ci la mujj te laata am but ba sonn nañu record yéen kay nañu budul woon ak Formose Mendy mi dugal butub Sénégal bi bi match bi di waaj a jeex kon lambay dana ñaaw Formose moo sauvé opération tàggatoo ba lise ko nañu am nañu victoire ci kaw Niger 1-0 waaye victoire ba na la ko yàlla nëbb ne footballkati Sénégal yi bari na ci ñoom ñoo xam ne démb kenn xàmmeewu leen woon Ismaïla Sarr mu feeñul fenn Iliman Ndiaye mu meloon ne ku newuloon ca terrain ba akum Nicolas Jackson moo xam ne bañoonu dugg sax a gënoon duggam ba lise ko ne nañu lii mooy li feeñ ci match sub démb ba suur soit nañu Sadio Mané may séetu ba tax mu rate match sub démb bi bokk gën a compliqué mbir